kenn waru laa xas amoo yaraanga borom xaaba sëriñ baara fàkk yaay borom teraanga kenn waru laa xas amoo yaraanga sa pas-pas doy na sëriñ Tuuba sob liggéey neex na sëriñ Tuuba na maam Cheikh Ibrahima Fall Mamadou Fall Sarr Ngaay roy leen ci sëriñ Baara tu jóg sampi daara mbaa di sikar daara jaajëf sëriñ Baara moo sëriñ Baara Mbakke moo sëriñ Baara Mbakke moo sëriñ Baara Mbakke salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe ñu ngi leen di siyaare baax di leen seen wàccuwaay tey ñu ngi fii ci Touba Aliya yàlla dogal nekk fii kër taalibeem soppeem doomam doomi xolam Serigne Xarim Gueye mu Alaaji te tey jii nii fii ci kër Serigne Xarim Gueye Alaaji Baara di taalibe Serigne Alaaji Baara di doomam di léppam di soppeem tey ñu ànd ak Tawfekh Production ay ànd ak suñ sunu sunu caméraman Cheikh Amadou Moutala Mbacke góor yàlla nga xamante ni macha allah euh, télé bii ñuy waxee muy Tawfekh Production yàlla dogal na moom moom moom la ko yàlla jagleel moo ko moom mu ci liggéey liggéey bu am solo xew-xew murid rek lay topp ak rek lay topp di ko di ko couvrir di ko jëli jëli mu am solo di ko filmer film mu am solo kon di ko ñaanal baax eh, eh, sitam bi yàlla na ba nekk télé ci barke Cheikh Issa Diène kon di leen yëgal ni rek Tawfekh eh, Tawfekh Production lépp loo xam ne xew na ci màggaluk alaaji baara gi ba ci kasu rajo bi màggaluk baayam sëñ fallu lépp dana leen ko digtal ci site internet bi ngeen tàppe Tawfekh Production lépp lu leen lépp loo xamante ni nam ngeen ko ci màggaluk alaaji baara gi ak ci kasu rajo bi dara du leen ci wuti dara du leen ci wuute incha allahu rabbi jaajëf sëriñ baara xam naa bu yowmal ba nga may leen soppey sëñ baara ñu dugg ba jànnato dëkk firdawsi nag janook sëriñ Tuuba xam naa bu yow mal xiyaame bañ na may leen waa kër sëriñ baara ñooy soppey sëriñ baara ñu dugg jànnato dëkk firdawsi waaw bëgg lu rafet ak lu taaral dëkk bi waaw ah, bu ñu fekkee sa rakk ju tedd ji Cheikh Abdoul Hatim sëñ Cheikh Mbacke soxna bu gis nga ni mu sëggee nii ak taali bi léegi nuyu na la sëñ Galas waaye moom sëñ Tuubaa rek la bëgg ah, waaw ak sunu wajuru tedd bi laaj maam sëriñam sëñ Lakram sëriñ Salif Seck sa Ibra Cissé sa maam Cheikh Anta Babou ñëpp nag xaadim man day suñu féete màggal gi duñ nekk fenn fudul ci moom ndax buñ nekk Ndakaaru guddeeg bëccëg ñooy nekk sëñ Fallou képp ko ñor léegi biñ nekkee kër soxna may man la nañ man la nañ dem sëñ xaadim danga nga ne ma sawar naaj man la man nag foofu laay màggale ci soxna may laa ko yëkkatee na ko nañ dem mook mam tëriñ mu wax mbaax ak lu mu seq ak yow bi sëñ fàllu amee ba ni mu demee nag sëñ Mor Moussa Fallou ba mu ko wootee moo samp doomi sëñ fàllu yëpp jëloon ay doomam def leen ay taalib ci seen baay yu ndaw loolu moo waral tey bi mu leen wane ginnaaw njabootam gi fu ñu dem barke di leen topp seen wayjur moo ko liggéeyal seen duggee ngi nii wayjuram doon doomi Cheikh Sidil Muxtaar waaw moom it ñëpp mu bokk say soppi kon maam Cheikh Anta Ba yi fi toog yëpp damaa bëggoon ngeen bàyyi xel ci benn baat rek Souleymane kii toog sëñ Modou Moussa Falilou mooy waajuram kii toog sëñ Cheikh Amadou Mbacke Soy bu moo ko jur kii toog maam sëñ doomi sëñ Abdoul Akram la ñoom bi yoonu mur di taxaw lépp dara génnu leen fii nag egsi ngeen ci barab àjjana ji ndax yéen liggéeyal ngeen sëñ Touba Ndakaar daanaka fanweeri at muy Souleymane Baye Fall borom xasaay di sama xarit Aziz Abdoul Khafour yéen ket yëpp lu ngeen di wax na wax ba egsi ak Cheikh Saliou ba njabootu Cheikh Modou Fadal egsi fekk fi njabootug sëñ Souhaïbou bu njabootug sëñ Afia egg si ne kon xanaa lépp war naa mën a sotti ñuy wax ne xaadim bi mu tabaxee daara ji ban toll ci war ko liggéey dafa ñëw waxtaan ak sëñ bi sëñ bi ànd ci bokk ci ñu koy xalaatal gis ngeen daar ji ni mel ku fi ñoo xam ne Daaru Salaam rawat na kër sëñ Fallou Modou Galas Mbaye nga jànkatub sëñ Fallou kon sëñ Matar kii yéen ngeen ko bëgg ngeen koo samp mi ngi liggéeyal sëriñ Baara Falilu fu sëriñ Baara nekk tey ci barsàq xam nañ ne sëriñ gërëm na ko tey tubaak léegi doomi sëriñ Tubaa ju ne doomam ñëw ci bëccëg ba léegi yoonu murit wépp fi daje lenn képp moo la ko may muy ngërëm ak liggéey loolu taxoon sëñ bi ñëw di la ndokkeel ak di la jaajëfal ak di la encouragé te di la wax na lépp loo nekk moom mi ngi ci du ci dugg du génn di gërëm doomam ci tedd ji rakkam ji Cheikh bi laat Cheikh Abdoul Ahad moom murit saadix la ñun bu ñu nekkee Ndakaaru ku jaaxle nag mooy ànd yow dem ngir nga lijjanti ko bu fii liggéeyal na waajuram ba jébbal ko ay caabi cant na lu yàggul Ndakaaru ba cant gi jeexee lañ ko siyaare lépp fanweeri ñetti million la ak juróom benn fukki junni dafa jël xaalis bi ànd ak man ak Mamoun dem ba siñ Cheikh Amadou Mbacke soé baam jébbal ko ko sëñ Cheikh gërëm ko sant ko bi sëñ bi ñëwee gis nga fi mu sëgg siggiwut pour yoonu murit kaala gi rek ku ko takk ba am ngërëm ñu bañ a guddal loolu lañ doon ubbil sëñ bi doon siyaare mbokk taalibe yi di la wax xaadim nag gërëm nañ la sëñ bi de xanaa ma sànni ci ñaari kàddu rek maa ngi jéggalu nag ndax euh, ab donga moom warut sa toog ci kanami sëriñam di di jéem a jéem a joyal yenn kàddu waaye sëñ Maxtaar Cheikh Abdoulaat ñoo ngi leen ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi seede ñoo ngi dañuy am ay kàddu yu ndaw rek yoo xam ne dañ koy seede ci sëñ xaadim mooy dañuy am ay kàddu yu ndaw yoo xamante ni si dañ koy seedeel dañ koy dañ koy seede ci sëñ xaadim mi ci sa kanam ci seen toogaay bii Mbàkke sëñ Mbàkke mi mën na koo seede morje mi mën na koo seede man yaakaar naa ne bu ma seede bu ma seedee ci xaadim xanaa kenn du ni kii lim seede waru koo seede wala ndax fu ma toll ci àdduna daanaka bis euh, lépp ñooy nekk waaw ñooy nekk waaye daal li ma la mën a seedeel ci moom mooy ab taalibe la nit ku baax la ku bëgg sëñ Fallu ba yemalewu ko kenn ba yemalewu ko kenn bëgg gi Cissé ma ne ko ah mu ni ma bis bii mooy bis bi ma gën a fonk ci àdduna li tax ma yëkkati programme bépp teg ko ci loxob Soda Badiane Soda day day day day day sama soxna di sama di ab taalibe di sama xarit di sama confidente di sama di sama complice waaw moom daal sëñ bi ñu ngi lay seedeel ak ak mbaaxam ak lépp Mbàkke ba lay sa jërëjëf ah, ma ne yéen mbooloo mi ngeen baal ma ne ngeen baal ñu ak sëñ Maxtaar mii toog sëñ Modou Boussa Dieng sa baay bu dellusi woon doom dara soxna wa gaje gaa jur soxna wa gaje ga Faat Cissé ko jur Faat Cissé Abdourahmane Binta Dieng ko jur Abdourahmane Binta Dieng Assane Batoor ko jur Assane Batoor ak Masata Batoor ak May May Batoor ñoo bokk ndey ak baay ma Mamar Aminata mooy seen baay ma wax ko sa yaay sëñ Modou ni ma xanaa loolu la bokk waa Daaru Xudóos Mamar Aminata ak Modou Aminata ñoo bokk ndey ak baay Saakar Faat may seen baay xaadim nag ay wax moom boo jërul añ doo ca reer jëru nga di ko baril li ngay def jarul wax li nga dul def jërul li wax sëñ Baara yobu na sa ngërëm sëñ Moussa Fall yóbbu na sa ngërëm ñëw naa ci yow sieste la ndaka ma commencé rek sa bàyyi génn ay yére ne dama la koy may ci xaadim ma ne ko déedéet bàyyi ma ne ko li ma yor ci yére mu ni ma damaa sant xaadim askan wi nga juddoo soo leen tegal loxo ci mbooloo ni leen bon mbaa nan daw ndax géwél yeeg jaam yi dañu loola jël lañu lay wax tegal sa loxo maa ma dee ñunoo bëgg ma jigéen du ko ma bor sa borom sippo xër ma sir mi dikk bu ñuy ñëw mu indi leen Issa Dieye dafa ñëw si jóga maa jololeel banda taaloo fa benn doom rek muy ma siri bi jóga maa jolool banda faatoo ñu ne ku ko mat jëkkër ñu ne jox leen ko saa xewar faat ñëw jur ay sa mbaak faat ma ma xule jaag joor ñu sant waaye ma siri mi ñu bokkal benn day géy la sant ponkal mu bañ la yendooy lambaay càkkale yéen doo gis rek ñaañu ko la gën biir waag yoor ma yoor gaaru buur mag leen ma ca bu ca dara dara dee na cawaan nag soo ma def ma defe ne noonu soño fiil alaaji baara yóbbu na sa ngërëm alaaji baara sëriñ fallu ma marana sali balay si bur sëñ mbàkke maaram yàlla ngaa gale si sago jërëjëf sama ni ko yàlla def ku mu neexul yaay gireere Amen. waaye sa saadix kenn bu ko nattal yàlla yàlla dugal sa fan lii yàlla na nga ko yàgg a taxaw yàlla na nga dund dund dund ba dund sàppale nga daagu nàkk dem àjjana alaaji baara bi wéccuwul woon lam la doon séddee te ab cër nag da nga koy fonk nag da ko la ko joxoon na mu ca waaye waxuma laa la ji baara waaye mboolem njaboot bu fi bàyyi di njabootug sëriñ sëriñ Tuubaa di njabootug sëriñ Fàllu bi ñu ngi nabu ci cër bi laa la ji baara yàlla yàlla guddal sa bi ma dugg see Touba génn kër képp laa dugg siyaar si muy sa kër ndax man waa kër Serigne Fallou la Serigne gii li moom Serigne Abdoul Fatah moom Cheikh Amadou mooy sama Serigne bu jot may def ay berne bis naka tey ak suba waaye li waral ma bàyyi lu lépp ñëw sa jukko sa soxna su baax si léegi wax naa ko ko soxna soo dama jaar bi may xamanteeg moom loolu kenn ndakaaru bu njëkk la bi ma xamee yow mi yaay borom këram ak léegi yàggul xam nga lu waral lool ab liggéey ba pare boole ko effacé si lépp nga aj ko aj ajal ko ci yoonu murid ko ci bi dalal xelam dalal xelam taawu ko ba daraam langul kon nag Serigne Khadim yow mënul laa fa dëgg la xam nga lan lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan musal la شيء شيء لو مسوق صبر يا بني شيء شيء لو مسوق صبر